docteur Oumar Dia ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay. voilà may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi lay dalal yow ngay secretaire général bu syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal enseignement supérieur et recherche nekk ci euh, jàng euh, gu kawe gi tey ñuy waxtaanee master pour tous mu doon coow li nga xam ne moo ngi fi ñoo ngi xam le ne dina am ay réformes ñu bëggoon leen laajte déjà ndax master pour tous am na. ñun daal su def enseignement te xam naa ne du ñun kese jàngalekat université yi yëpp ñun problème boobu ci yenn taskatu xibaar yi lañ ko lañ ko déggee mhm. te daf ñu jaaxal torop lu tax ñu jaaxal lu parce que ñun dañu gis ne que faux problème la du problème bu am la problème master pour tous ci université Sénégal yi musul am parce que ñu ngi fonctionner conformément à la réforme LMD depuis bientôt dix ans te réforme LMD bi muy licence master doctorat euh, euh, lu mu kii lu mu samp mooy c'est que licence sortie la master sortie la ak doctorat tam sortie la mhm. loolooy lan loolu loolu mooy que ne passage automatique entre licence ak master amul passage automatique entre master ak doctorat amul étudiant bu pare cycle par exemple licence mhm. génn na en réalité pour mu duggaat ci système bi euh, foog mu répondre appel à candidature donc foog mu candidaté joxe ay ay documents ay justificatif donc foog mu compétir foog ñu sélectionné ko. Mhm. mën nañ ko sélectionné mën nañ ko bañ a bañ a sélectionné depuis réforme LMD am ba léegi noonu la ñu fonctionné ci université yi donc ñun daf ñu jaaxal trop ñu jékki-jékki rek wax ne problème par exemple master pour tous. problème problème bu amul la en en réalité. Mm-hmm. Euh, te dañu gëstu ñu ne peut-être loolu. Mhm. dafa ëmb beneen problème booy xam ne gouvernement bi fësalu ko. tey balaa ñoo dugg ci loolu sax nga bëgg a xuus ñu for ci wéeru béy ne masse pour tous euh, dafa mel ni bokku leen langage ak yenn étudiants ñu ci mel ni ñu nekk ci fac science ak euh, fac juridique maanaam faculté de sciences juridiques muy fac droit tey ñoom nee nañu am na ci ñi nga xam ne ne nañu am na lii di masse pour tous ba tax na ci seen assemblée des facultés ñu ñoo ngi doon ñaax ñu jëlee ko fi euh, surtout ñiy def PC ak SVT loolu lan lañ ci mën a jàpp. ah ñun ñun loolu su su def enseignement recherche loolu ndax ñu jaaxal. Hmm. parce que dañ leen dàq rek yéen taskatu xibaar yi am ngeen an archive ci seen archive yi at yi yëpp depuis plus de cinq ans. Hmm. at bu ne étudiants yi dañuy ñaxtu dañuy grève dañuy yëngal kii yi. pour réclamer master pour tous donc hmm. bu bu dee ñu ngi ñaxtu at bu ne pour mun a am master pour tous loolu lu mu firndeel c'est que master pour tous amul te musul am parce que su amoon hmm. mënuñu ñàkk ci xam ñu xam ne problème bu amul la donc master pour tous daal mu musul am parce processus bi mooy ni ma ko décrire sànq noonu la demee licence sortie la master sortie la doctorat sortie la hmm. pour passer licence master loolu moom da ngay da ngay defaat beneen beneen démarche parce que su nekkoon automatique su nekkoon pour tous démarche boobu du doon am du waaw du du doon am te étudiants yi ñu doon ñaxtu ñooy xam ne jëluñu leen duñ doon ñaxtu pour réclamer ñu jël leen en master. mu mel ni da nga ne état dafa am lu muy nëbb bu bëggee andil yooyu les réformes lan ngeen jàpp ne moom lay rumandaat. waa ñun dañu gis ne exactement que lii moom faux problème la du problème bu am la. donc euh, état bu ñëwee ba poser problème faux problème c'est que par exemple lu ko ñor dëgg daf ko nëbb daf ko nëbb te bëgg ko feeñal te ñun looloo ñu intéressé lu ñor dëgg état bi loo xam ne bëgg ko feeñal lu ñor lu ñor dëgg état bi c'est que état bi mel ni autonomie université yi autonomie instance pédagogique yi daf ko déranger mel ni buggatu ko. waaw depuis 2013 mel ni état bi Sénégal daal bëggatul indépendance ak autonomie université yi mel ni loolu la fi bëgg a jëlee donc moo fekk moom mooy fekk président de la république bi mooy dogal wala ministre de l' enseignement supérieur wala gouvernement bi fekk daal ñun daal dogal ci nu ñuy fonctionner dogal boobu fekk du ñun ñoo koy jël ñun dañu gis nekk que peut-être que loolooy première motivation bi te ñu ngi avertir état bi su dee loolooy seen préoccupation. ñu ngi fi taxaw il n'est pas question que loi bi may ñu autonomie may ñu indépendance loolu moom ñu séddee ko. kon daal da ngeen foog ne euh, état oh. li muy def nii euh, mm, dina jëm ak yéen ba lépp lu université yi wundu rek faw état dugg ci loxoom. non non loolu la bëgg mooy mooy mooy justifier conseil d' yi xam nga état dafa décider que léegi conseil d' yi ñooy nekk ci université yi ak ñooy xam ne dañu jóge feneen quoi nekkuñu université di fi jël ay dogal comprendre nañu. mais loi bi daal daf ñu may autonomie pédagogique ak autonomie scientifique loolu moom <laughs> waaw état bi du ko jël te pare nañu xeex quoi pare nañu xeex pare nañu bloqué université bi ci su dee état bi euh, looloy projet am. professeur euh, uh-huh, oui. waaw beneen beneen kii bi beneen motivation bi xëy na état bi en réalité problème koppar la problème bi problème kii bi yëpp problème koppar la problème bourse étudiants yi. mooy bourse yi. mooy bourse étudiants yi état bi. ça l'intéresse pas jël cinquante mille étudiants en master wala ñu bañ a jël cinquante mille étudiants en master lu ko intéressé mooy nombre de bourses correspondantes yi nombre de bourses correspondantes yi donc ñun loolu du suñu problème il n'est pas question que état bi jaar ci ñun régler un problème avec les étudiants par procuration en utilisant les enseignants et en utilisant les instances pédagogiques loolu tam loolu tam euh, duñ ko loolu tam duñ ko nangu ñun ñooy décider. Mm-hmm. état bi du décider président de la république du décider ministre de l' enseignement supérieur du décider ñun ñooy décider nombre étudiants yi ñuy admettre en master léegi bu ñu leen admettre master ba pare. Mm-hmm. pour ñu am bourse wala ñu bañ a am bourse loolu du suñu problème loolu problème entre étudiants yooyu ak gouvernement bi ñu ngi ci situation boobu parce que par la faute du gouvernement mm-hmm. en français dañuy wax ne que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mel ni fii looloo fi gouvernement bi moo musul jël responsabilité am jël matukaay yu mu war a jël pour suñu système d'enseignement supérieur ak recherche dox lu mu war a doxee. tey euh, de. Uh-huh. waa 2013. Uh-huh. defoon nañu concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Uh-huh. ñu gëstu ñu gis ne dañu war a professionnaliser suñu système bi. gouvernement bi jëlul benn matukaay pour loolu am. léegi mu ngi nii dafa confronté ak un nombre extrêmement important de jeunes sénégalais ah waaw amuñu kii du amuñu diplôme professionnel ñooñu dañ leen bàyyi nii dans la rue comme ça ah ça ah, ça ça ça il n'est pas question problème boobu gouvernement bi moo ko créé na ko na na na ko gérer. na ko gérer lan la ñuy laajte ndongo daara bi nga xam ne euh, loolu la mën a am pour mu inscrire master. en fait critères yi premier critère bi mooy nombre de places. te ñun en fonction de nos capacités d'encadrement ñun jàngalekat yi ñun ñooy déterminer le nombre de places c'est vrai qu'on se sacrifie qu'on parce que ñu ngi fii on vit en société euh, xam nañu daal qu'il vaut mieux prendre sauf sauf vraiment quand c'est vraiment impossible il vaut mieux jël xale yi en master que bay leen dans la rue comme ça mais ñun ñooy déterminer nombre de places yi mun na ñu benn benn par exemple master mun na réunir naan par exemple ah bon juróom jàngalekat la ñu am juróom jàngalekat ñooy xam ne mun nañu encadrer master donc mënuñu jël plus de quinze étudiants en master ñu lancer appel à candidature conformément ak nombre de place boobu mun na am par exemple téeméer candidature su amee téeméer candidature xam nga foog ñu départager leen donc foog ñu examiner examiner dossiers yi cursus yi mention yi et cetera ñu classer du premier au centième ñu classé du premier en cinquième mais étant donné que master bi nee nañ quinze lañuy jël ñu jël quinze premiers yi rek mais loolu suñu sañ-sañ la suñu prérogative la loi bi moo ñu ko may du ñu may gouvernement bi muy jogal ci par exemple ci loolu. Mhm. tey jii professeur yaa ngi koy wax sànq ci li jëm ci CNAES yi muy concertation yi mu am yi nga xam ne doonoon na ci ay recommandation tey nan ngeen jàngatee politique universitaire yu euh, ñu ñuy jiite. Euh, mel ni ci ci ci question boobu gouvernement bi dafa woote ndaje bu mag 2013 concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur mm-hmm. concertation bi am avril ñu préparé ko pendant plus d'une année mais mu am en avril 2013 août 2013 président de la république ci boppam mm-hmm. woote un conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur jël ay onze décisions ak directives yu bëre mm-hmm. naan lii dañ koy def mais dafa mel ni gouvernement bi foofu la yem foofu la yem deful dara amul benn euh, décision présidentielle bu gouvernement bi matérialisé donc c'est normal ah parce que lu ñu waroon def la suñ ko deful dañuy am ay difficulté moo waral difficulté yi yëpp ak problème yi c'est que gouvernement bi deful lu mu waroon def mm-hmm. tey ñu wax ci leneen en tant que professeur chercheur euh, ñu nekk di wax ci euh, virus bi euh, wax tamit ci vaccin bi coow li nekkur diggante spécialistes yi sax yow lan nga ci xalaat en tant que chercheur. waa ñun dañu bokk ci communauté scientifique te dañu wóolu science dañu xam ne garab bu ne walla vaccin bu ne dafa am tout un protocole pour ñu mettre ko en place. Mm-hmm. te ñun dañu dañu wóolu processus yooyu dañu wóolu processus yooyu amuñu benn scepticisme am nañu amuñu benn jéexi jaaxa ci processus yooyu donc euh, par exemple suma collègue médecin bu nee ne par exemple que tel processus est valide recommandé ko par exemple war nañ jël vaccin bi wala garab bi man pour man daal dañ ko war a def euh, te de ce point de vue moom xam naa ne du man kese je suis un partisan du vaccin il vaut mieux se vacciner et éviter la maladie que ne pas se vacciner et prendre le risque de d'être malade et de et de fermer nos universités et nos écoles. et justement ndax am ngeen njàkkare jamono ji fii mbas mi toll ak euh, cas yi ni ñuy gën di bëree université ñu tëjaat ko. Euh, ragal nañ ko lool ragal nañ ko lool lu tax ma wax ko. Mhm. c'est que euh, daal yëf yi daal ëpp na ëpp na loxo chiffre yu ñu gis ëpp na loxo. te sacrifice extraordinaire la ñu def depuis le 2 septembre. Mhm. pour sauver année universitaire deux mille dix neuf deux mille vingt. fii ñu ngi ci examen rattrapage euh, deuxième semestre bi première année yi mais ragal na daal balaa lu jeex sa bon waaw beneen situa beneen situation am. waaw maa ngi ñaan loolu bañ a am mais mais ragal nañ ko torop li tax ngeen ragal mooy firndeel ne université dafa mel ni matuwaay euh, matul ngir nag mu aar ña fa nekk. ah waaw xam nga dafa am protocole sanitaire te benn mesure fondamentale protocole sanitaire mooy distanciation sociale. Mhm. xam nga distanciation sociale foog mu pour mu mun a am foog euh, infrastructure yi am foog place yi doy foog ngeen mun a respecter distance bi et maa ngi doon wax sànq gouvernement bi deful dara lu mu waroon def depuis 2013 deful ci dara donc amu ñu infrastructure amuñu condition yo xam ne mun nañu respecter protocole sanitaire bi donc effectivement la situation est très très inquiétante dans les universités. merci beaucoup professeur Dia Oumar Dia. Merci beaucoup. Secrétaire Merci. général Sud-Est euh, section euh, enseignement supérieur et recherche. Merci beaucoup. jërëjëf maa ngi leen di fay ak auditeur Rewmi FM yi yëpp. Merci.